damay damay laajte rek xam nga tey mooy comme tey nga nekk imam nekk ci benn juma wala benn jàkk wala nga nekk labbe nga ñëw taxaw ñu ne mees bi ñi lay tëddee wala julli bi ni ngay tëddee nga taxaw ne noo yow tey da nga décidé julli bi neneen lay tëddee yow soo xefee ñu nekk ci jumaa bi wala ci ci église bi ñoom ñooy lijjanti sa kaa parce que yow doo alxuraan yow doo bible ñun ñu nangoo taxaw sa ginnaaw nga ñuy jiite c'est parce que dafa am kanam boo ñu wan ak tamit lu ñu am ci yow ci yaakaar président de la république su ñu demee ba dénk la suñu réew yaakaar a tax ñu dénk la ko ëppoo fi xam-xam ëppoo fi kattan ndax ko fi jàng kenn wante nag dañ ñu nax mais dañ ñu nax benn yoon mais ku doo ko bisaat incha allah parce que troisième mandat fii Sénégal dañ ko fiy tere maintenant nag Macky Sall su amee ay mbokk na mbokk mi wax ak moom parce que nag gis que surtout ñëpp sooy dem ci confrontation ne la wóor na ni que tu as les moyens de la confrontation police bi ak gendarmerie bi du loolu mooy régler la situation ça ne réglera pas la situation au contraire ça va envenimer la situation d'accord alors da nga ni euh, président de la république dafa war a respecter la constitution parce que joxe nga exemple ci imam ak ak jàkk mais est-ce que opposition aussi warul respecter la constitution parce que information yi gouvernement bi mën a am ci trouble à l'ordre public xam lu ngeen xamul su ne du ngeen ko def est-ce que gënula correct le huit ngeen def ko le ngeen rangé wu. prochaine fois <laughs> dinaa la wax lu tax mais est-ce que loolu gënul nekk. yëfu yëfu yëfu nit. dinaa la wax bu booba est-ce que bu ngeen ko defoon ñii dee nañ de. ñu dee ñoom ñoo leen rey nguuru Macky Sall la leen rey. et ils en sont comptables et responsables. te yàggatul nanka nanka rek gis ngeen àdduna nanka nanka rek parce que sa sera réglé. faut pas qu'on pense que vingt personnes meurent comme ça et puis voilà on ça passe pour perdre des profits. ñaar ñaar ñaar da nga ma posé question da nga ma posé mhm. yu nga ma posé nii. ñun ba ñu njëkk dugal demande. gars yi dem jëli seen xale yooyu nekk ñoom tamit dañuy manifester foofu dañu bàyyi wala bàyyiwuñu dañu jël ñu bàyyi. dañu bàyyi pour que nit ñi mën a gis que li provocation la xaw dëgg laa benn foire moo fa amoon xaw ma ñetti ñi dafa nekkoon euh, ba ñuy taxawee biig. ne dañuy def suñu conférence de presse beneen dañuy génne le 29 yow conférence de presse bi jeexagul sax yow nga taxaw ne da nga recevoir demande préfet lu muy wax du dëgg maa ngi jégalu nag pas ci nit ci préfecture bi ak ci autorité administrative bi parce que nag mën nga nekk fonctionnaire mais am nga loo nar bañal sa bopp parce que fii àdduna la man su ma nekkoon tey préfet de Dakar du ma nangu tey opposition di def. conférence de presse ne ci bës bi laa fas yéene waat génnaat ci mbedd bi ñu ne ma waaw waa nguur gi dañu introduit ils n'ont rien introduit c'est du préfabriqué en complicité ak ku may wooyee Antoine waaw ñàkk jom parce que yenn yi ab ñàkk jom la gis que nit ki dangay gëm sa bopp am sa fulla am sa fayda ak sa ay principe mais nag yow soo foog ne ni que fu nga nekk nii tu es là pour faire le sale boulot nañu dem mais nag bu kenn wax ne ni que on n'avait pas dit parce que je vous dis que tout ça ça se réglera d'une façon ou d'une autre parce que lii nii lii nii il peut pas ne pas avoir de responsable ça ça doit être clair parce que nag man du ma wax ci waxu Antoine Diome ci ay waxu ay agence judiciaire d'État ak ay procès parce que kooku passé na wante ce qui se passe actuellement dans ce pays c'est pas acceptable constitution moo ñu tënk dañ ko respecté ok maintenant nag d'accord naa ak yow ci lenn suñu mhm. demoon tey ci manifestation manifestation bi débordé ah boobaa nag nangul naa leen suñu wootewaat manifestation am nañ droit ne déet dañ leen joxoon ngeen toj ngeen taal ngeen yàq di yoon du ngeen bokk ñu nangu mais tojuñu saaguñu taaluñu yàquñu di bëgg a wane suñu naqar nee nañu duñu wane suñu naqar ba di ñu tënk suñu ay kër di ñu fa dóor ay gaz lacrymogène di yàq suñu ay koñ di pëndal fa mais c'est pas acceptable c'est pas acceptable. alors est-ce que yaakaar nga aussi c'est acceptable. opposition bu Sénégal à chaque fois bu ñu ko nee doo marche wala doo manifester mu ne par force daf koy def parce que dafa am droit pour résister est-ce que yaakaar nga loolu aussi c'est acceptable est-ce que jàpp nga ni état bu Sénégal dafa war a nangu seen dictat dafa war a nangu li ngeen bëgg ngeen di ko def nu mu leen neexee. kon leneen moo mën a am te boobu nangul naa la ko boobaa dañuy dindi ci constitution bi droit à la marche booba nag nangul naa ko mais tant que mi ngi ci constitution bi du président du fonctionnaire dafa doon dafa nekk ci constitution. c' est aussi simple que ça cest à tey dama laa jox benn exemple yow tey citoyen sénégalais nga amul benn autorité administrative bu la mën a tere nga ne dem wuti passeport wala nga am carte d'identité mënul nekk parce que constitution moo la may sañ-sañ boobu maintenant nag Macky Sall excusez président Macky Sall ak ñu mu àndal am na lu ma leen nangul su leen neexee ñu ne ñoom am nañ seen majorité mécanique assemblée nationale dañuy dindi ci constitution le droit à la boobaa képp ku fi introduire demande na nga jàpp ni du information autorisation la soo ko amulee toogal sa kër parce que constitution daf la ko tere mais constitution nangul la ko benn waaye taxaw fële Macky Sall jox ko abal ko ay bët ne ko fii euh, laa la jox mais fii laa mais bien sûr que il faut que le président Macky Sall ci ñett ñi dee nga wax ñi leen rey yow peut-être loolu sa responsabilité la mais li nga xam ni dégg naa ko ci muy autopsie bi ki dee ci Casamance autopsie bi li ñu wax mooy lu mel ni jaasi wala paaka moo ko rey kooku mooy benn ki dee fii ci Dakar li police wax communiqué bi ñu def dafa jël essence di taal pneu ci la lakke tàkk léegi su fekkente ni yooyu wax nañ ko pour pourquoi loolu war loo ko mën a gëm te muy ay ay ay ay voies autorisées ñu expliquer joxe ay ay euh, joxe ay réponse ci lu mel noonu pourquoi loolu mun la doy. mais parce que ñoom ñoo taxawoon fi ne 94 milliards yi amut que c'était réglé ñoom ñoo taxaw fi ne ci pétrole ak gaz bi euh, rakku président Macky deful dara. bu leen yàkkamti léppay jeex seen bos bi su jeexee on mettra de l'ordre dans tout ça kon ñoom ñoo ne euh, da doon taal taalaale boppam waaw ku ko wax ak ñu ko validé bés bu ñu toogee parce que incha allah dinañ toog bés bu ñu toogee ñoom dinañ ñu wax ban kanam lañ leen wan ba ñu bëgg ñu yépp di ñu wax ne ni waa ji da doon taal pneu bi taalaale boppam yàkkamtiwuñu leen on parle de vie humaine ba kenn kenn du ko fooyee. Mhm. waaw maintenant 14 morts yi lan lan lañ ci wax ñoom. ci 14 mois wu mars 2021 lan lañ ci wax comme ñoom loolu loolu mooy seen gis-gis te je rappelle au passage que y a un chroniqueur bu fi def émission taxaw wax lu mu dégg ci président Macky Sall lu mu wax ci commission d'enquête mais su nekkoon république normale ngay wax ci lu mel ni institution ñu woo la ne la yow lu nga wax ni ci sa émission bi foo ko dégg hmm. président du moo fi diggoon commission enquête maintenant suñu doomu ndey bi nee na comme président bañ ko koy wax nee na sax moom du def benn commission pour loolu mën a doon benn leçon ci Sénégalais yi parce que képp ku fi ñàkk sa bakkan ci mbedd bi yow yaa perte lu mooy sa gis-gis yaa amul problème nañu muñ rek muñ am na solo nañu muñ lu ci des bëritul ok il reste je su ma jumlee il reste dix huit mois. ok nañ ko muñ rek. ok alors euh, résistance ngeen wax mais gis nañu muy yow muy Ousmane Sonko kenn jéemul a résister fi ngeen taxaw ngeen taxaw nga nekk sa sa balcon taxaw fa di di aalu kële moom nekk ci biir këram di di def yëfu <laughs> voilà quoi alors euh, est-ce que yaakaar nga ni loolu itam mooy li ngeen waxoon xale yi mooy li ngeen waxoon nit ñi génn leen ñu résister génn leen ñu def nangam loolu est-ce que mooy discours boo xam ne bu responsable la ci ay ay ay kilifa donte yow sax doo leader quand même. waaw mais man du ma leader. waaw moo tax suma position bi neex dama bëgg a Macky Sall déglu ma. <laughs> dafa am lu mu namm ci man. man damaa diwoo diw diwlin laa diwoo diw diwlin laa diwoo kenn du